dénkaay ri soirée et fils mo len di may sen khutba al juma juma serigne Murtada mbake ci Grand chess wama jara majraha kon mbokk yi ginnaaw bi ñu daaneelee xutba bi dañ koy teunk rek bañ gën ko mëna jarño sante borom bi nga xamni mo def goudé ak guddeeg ak ñuy wuutante ñu man ci xalaat nak képp ko xamni war nga xalaat man nga ci xalaat képp ko wara sante yalla man nga ci sante yalla bu baaxa baax waye jang ñaan xéewal ak jamm ci ki nga xamni mo moo ci ci kaw al burakh wuyu ji suñu boroom muy seydina muhammad mi nga xam ne lépp luy ngeneel moo ko làq sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu yéen nit ñi nañu xam ni suñu borom day moo ñu digal nañ topp yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye topp kilifay diine yi nga xam ni moom lañ suñu borom booleel kon mbokk yi suñu sëriñ mu sëriñ Tuubaa radiallahu taala anhu di suñu wasila waaye di suñu kilifa di suñu lépp moom sëriñ Tuubaa radiallahu taala anhu yàlla na ko yàlla dolli teraanga xéewal moom day leeraloon nañu yoon wi ndax jamono ji bu ñu xoolee wootekat yi bari na lool day mel ni nit ñi dañ leen di xëccoo ba organisme yu bon yi ñu ngi woo nit ñi lan lañ leen di gere mooy àdduna wan leen alalu àdduna woo leen ca la nekk du ma tudd benn waaye ku nekk xam ne organisme yu bon yi bari ci àdduna bi rawatina biir Sénégal gii waaye ñu gis ni tam ñi nga xam ne dañuy woote pouvoir wala ñuy woote njiit ñi ngi xëccoo nit ñi ku nekk yaa ngi woote ni man la ku nekk yaa ngi xëccoo nit ñi moo xam ci ger la moo xam ci won leen poñaxitum àdduna waaye Serigne Touba day mi ngi wax ak ñun nee na day mbokk yi bi nga xam ne waajuram bu tedd woowu làqu na maam muy Maamoor Anta Sali ba ñu jébbal ko boroomam ba noppi mag ñi dañoo daje daal ne ko kat dañoo bëggoon ànd ak yow dem ci buur bi Lat Joor ma fa ne woon ngir nga jege ko ngir say mbir mën a jàkk ngir mu mën laa jàppale ci yeneen kon nitu diine ki ñuy wax loolu tam na xool la sëñ Tuubaa tontu woon ki nga xam ne ki ki la mën a ñëw woo la daf laa woote lam la woowee àdduna kese la yàlla dara néew ca ba moytu sax nga jële ca mooy yàlla waaye mu woo la lu mu lay jox wala bien lu mu lay jox lu sëriñ Tuubaa waxoon bañ ma waxee loolu day ma ma ni leen suñu borom doy nama ma te doyloo naa suñu borom doy nama ma te doyloo naa ko te man day gërëmuma lu dul xam-xam ak diine xam-xam ak diine rek laa gërëm ndax li tax mu jiital xam-xam teg ci diine mooy diine wér te xam-xam amul waaye na ngeen xam ni man day ñaar rek a tax nit di wéeru ci nit mooy yaakaar lam yor wala lagar wala nga ragal loram da na ngeen xam ni man day yaakaaruma wala may ragal kudul sama borom ndax suñu borom day bu dee lu ma soxla moo ma koy koomal bu dee lu ma ragal moo ma cay musal kon Sëriñ Tuubaa continuer continuer ca noona ba ni mu génne tukki ba tumuranke nekk ci dëkk bi ñu génne ko yóbbu ko fu soree sori boole kook lor yu metti boole kook lu nekk dafa ne day changer position day changer lam waxoon day changer na mu taxee woon ñu jëlaat alal di ko ger mu ne leen sama loxo bii day na ngeen xam ni ñeel aji koomal ji te aji tedd tey jariñe te jublu ko kooku laa koy tàllal waaye duma ko tàllal dërëm boo xam ne day jóge ci benn état wala day jóge ci nguur wala day jóge ci kilifi kilifteefu àdduna déedéet waaye nag moom Serigne Touba nag ba mu defee loolu daf ñoo digal nag fa ñu war a teg suñu tànk moo tax mu digal ñu jaarale ko ci sëñ Mahmoud Diop ni ko yow Mahmoud jóob maa ngi lay digal ci nga jublu ci li feeñ ak li nëbbu ñeel suñu borom tabaaraka li feeñ ak li nëbbu lépp boo jublu yow Mahmoud Diop jublul suñu borom ndax suñu borom day njariñ ak lor ci moom lay jóge waaye du jóge mukk ci mbindeef waaye ki lay jariñ wala ki lay lor ci suñ borom rek lay jóge kon njariñ bu mu tax nga yàpp yàpp ci ginnaaw nit bu mu tax nga ànd ak moom ci lu naqar yàlla xamal ni njariñ ci kenn lay jóge muy suñ borom waaye ragal tam wala mu menacé la wala ku àndul ci nangam dinañ la def nangam ba tax nga tiit dem ànd ak ñoom déedéet ka lor kenn la muy suñ borom tabaraka wa taala kon njariñ ak lor yow mahmoud na nga xam ne suñ borom lay jógee waaye du jógee ci mbindeef waaye itam lépp loo xam ne yow mahmoud ngërëmal yàlla ma nga ca bu ragal ko la ca yedd nga gis koo xam danaan la man de bëggumaa def ndax ndax bu ma ko defee nit ñi ŋànk ma wala nit ñi wax ma nangam te loolu ca ngërëmal yàlla nekk nee na ko mahmoud lépp loo xam ne ngërëmal yàlla ca nekk bu ragal mindeef mu la ca yedd waaye nag li tax ma wax la loolu yow mahmoud na nga xam ne munoo am du la jariñ ngërëmal nit ñi du la jariñ su fekkee ni maanaam amu ngërëmal yàlla ngërëmal nit ñi du la jariñ dara kon bàyyil ngërëmal nit ñi jëm ci ngërëmal yàlla waaye na nga xam ni tam du la lor mukk bu fekkee yàlla gërëm na la ca la nga ne du la lor mukk merum képp koo xam ni mooy nga ko wala naqari na la nga nekk naqari na ko meram du la wàññi dara du la mënal dara su fekkee ànd nga ngërëmal suñu borom tabaaraka wa taala kon mbokk yi ñu gis ni yéen nit ñi suñ sëriñ boobu day muy xaadimu samad bamba radiallahu taala anhu ma nga ñuy digalaat jaarale ko ci ahmad sëñ ahmad Diop ni ko yow murid bi moo tax ki taalibe bi nga xam dafa siyaare sëriñam sëriñ ba lam ko war a dolli mooy yàlla ndax sëriñ bi li tax nga ànd ak moom yàllaa tax nga ànd ak moom kon boo ko ziyaare jee wala nga jaxasoog moom yàlla rek nga war a gis ci moom sëriñ Tuubaa noonu la daan dundee te noonu la ñu ci jàngale waaye daanaka ku ci dem ci sëb sëriñ bëri na ñoo xam dañuy dem ci seenum sëriñ la ñuy ah bi de sa ko sëriñ bi de kuuleegoo sëriñ bi de oto bu bees bi nga jënd démb sëriñ bi de mbub mi sa jasneer bi de rafet na mu laa yow it de sa mbub mi nga gaare ana oto bi nga gaare ci bunt bi ah ana sa bi de mën nga ma koo jox Yen waxtaan ci loolu ba egg nga dem mu dem doo ko jariñ ci yàlla doo ko mas loo lu mu lay laaj loo dollee ko ci yàlla moom du la jariñ ci yàlla loolu ci bëggante ci àdduna rek ngeen di waxtaan sëriñ bi day daawu ko defee noonu wu ko woon noonu waaye ba nga xamee ne ahmad diop ñëw na ci moom bay dellu da ko ne yow murid bi li ma lay digal mooy maa ngi lay digal boo delloo ragalal ki la bind foo mën ne boo delloo ragalal ki la bind foo mën a ne waaye na nga xam bul di bëri waxtaan di wax ju ñor nga wax ju ñorul nga wax bu ko baril waaye bul di bari di nelaw rek del jóg di jaamu yàlla waaye bul di bari lekk fu la lekk bekk fekk bàyyi la fa bul di bari naan yow mi nga xam ne yaay Mahmoud Diop waaye na nga moytu fi bu ñu lay taggaka kañ moytu leen xam ne ci kàmb rek lañ la bëgg dugal waaye na nga xam ni saa buñ la xëccee yow yow Mahmoud jëmale ci ay caaxaan nanga nga bañ caaxaan yooyu jengal jëm ci sa borom bu tedd bi waaye itam ndax lan ndax bu ragal wala ngay yaakaar ku sa borom te nga sant ko ndax ba mu la jaalalee ci njub ndax li sëñ Abdou Khadir doon wax jàmbar amul ñu dimbalee am bu la suñ borom dimbalee ba nga jaar ci njub sant ko ca ndimbal googu waaye ni ko nag su fekkee da ngaa jéng ngir soxla jëm ci keneen ku dul yàlla na nga xam ne ay lor rek ngay bari ay lor kese ngay am boo jengee ci keneen ku yàlla ngir soxla ni nag bul jëng mukk nag jëm ci buur yi ñi nga xam ne ay pouvoir lañ yore bul jëng mukk jëm ci ñoom ñi nga xam dañoo yor ay pouvoir ba pare jeng dëng bul jeng mukk jëm ci ñoom waaye jeng jëm ci ñoom lu ñu teg nga a ah, alalu Sénégal la ñëpp a ci sañ damay lekk ni ñëpp damay lekk ni ñëpp bu ñu ma joxee ma lekk nee na bu ko def de nee na bu ko def alal ju léwul bu ko lekk kii lekk lu léwul bàyyi ko mu lekk lu léwul waaye boo ko ko lekkalee dégg nga li sëñ Tuubaa di wax ñu ngi ci kanam nee na day bul jeng mukk jëm ci buur yi nga xam ne dañoo jeng kilifa yi jeng yi bul jëm ci mukk ci ñoom ngir lor gooy ragal ci ñoom wala soxla gooy ragal ci wala soxla gooy bëgg ci ñoom ndax kat soo bokkeek ñoom seen tedd nga ji ci ëllëg àdduna gi bu ëllëgee yowmal xiyaam bu leen suñu borom dee toroxal kenn mënu laa torox ànd ñoom di nga bokk ñoom torox ga na nga bokkee woon ak ñoom tedd nga gi fii waaye sëriñ bi ak ndénkaane googu mu ñuy jox mu ni nag ñett yii na ci nit ki muslu ñett yii na ci nit muslu ndax mooy ballukaayu lor yépp mu ni la muslu ci sa borom te góor góorlu ci mu ni ko nanga nga muslu ci sa borom ci sa ayu làmmiñ soo ko defee dey di nga am wërsëg ndax bëri na nit ki ndekete wërsëgam yàqu fekk ni lu mu wax ci làmmiñam te waxuwul moo yàqu wërsëgam waaye gis nañ léegi wax bari na lool internet beeg lu ne ku ne di wax lu sa wóolu la wóorul di wax ci nit lu la wóorul seede lu la wóorul wax ci yëg génne sikki nit loolu rek moo bari mu ne ko nag na nga musal na nga muslu ci sa borom ci sa ayu làmmiñ soo ko defee de di nga am wërsëg ni ko nag na nga muslu ci sa borom ci sa ayu biir sa biir bi bu ci dugal ludul lu dagan bu ci dugal ludul lu lew soo ko defee day di nga am bëgg suñu borom suñu borom dana la sopp kon puisque suñu borom di fopp mooy kii dundalu lew waaye na nga muslu ci suñu borom ci sa ayu pay bul njaaloo mukk soo ko defee di nga am jege sa borom ndax njaaloo day tax a sori suñu borom ne ko nag def lu xaraam ci yii ma tudd na nga xam ne day xañ nit ki nanguk jëf waaye day xañ nit ki bànneexu gëm yàlla da koy ñàkk kon na nga wattu sa cër yooyu ci mbooleem lu xaram soo ko defee di nga am texe gudul jeex mukk waaye ñu tëje suñu xutba bi ci Sëriñ Tubaa soñ gëm ñu soñ ci ñu sant yàlla ndax sant yàlla kat mooy sant borom bi nga xam ni ay xéewalam mi ngi dotteeku di ñëw ci ñun guddeeg bëccëg mbokk yi ku ci yeewu yenn saa yi bu xawee ma banque tuuti rek boo ko ne sa mu la tey afi dara baaxul tey dara baaxul am na ñu tëdd ci hôpital ñoo xam ne bu ñu sañoon jóg taxaw dox doxi seen soxla na yow tey boo gisee am na ñoo xam ne ay raakool lañ leen di monteel ñuy ñuy ñuy lekk am na ñoo xam ne appareil lañ leen di monteel ñuy noyyi am na ñoo xam dañ leen di wëlbati pour sang leen waaye duñ mën a wëlbati seen bopp yow suñ borom may lay tànk may la lépp nga jóg fuddu dara méttiwul alhamdulilah rek julli sant borom bi te ñaan ko xéewal loolu rek moo ca war a topp moo tax kon nañuy sant borom bi nga xam ne xéewalam day dotteeku ci ñun ba bëccëg moo tax Sëriñ Tuubaa ni na ngeen taxoo sant borom xéewal yi ngir jëmmam moom mi nga xam ne du dañ mukk di ñu xéewalal na nga sant xéewali suñu borom yi ndax sant day mooy indi ndolleen te moo lay joxal moo lay jox lépp loo bëgg moo tax mu woo ci bis bu màgg bi muy bisu màggal Touba ñu gën koo xamee ci màggal Touba muy bisu sant yàlla dañuy wax ni màggal Touba daa bokk ci bis yi gën a rëy ci àdduna bi li tax ñu wax ko nag waxuñu ko ci làmbatu ndax bis la bu suñu borom moom ndax tey ku nekk ne xam ni Serigne Touba santul kenn ci bis bi ku suñu borom suñ borom ndax ku nekk di nga gis ku defu tantam bu reuy wo ñu bare bare ñu ko koy sant mu ni señ diw wo defar tantam wo ñu bare bare nga ni ko koy sant mu ni señ diw waye ki señ ba mu sant ñu ko koy sant mu ni yalla kon ki sant yalla ci bisam boobu bisam bobu ñu moo nga xam yalla ko mom kenn mom ko kudd suñ borom bis gënu ko reuy kon ñu xam bisub sant yalla la nan lañ koy defé moy ci jang alquranul karim ndax waye nak dem di sant yalla la yalla faratal ci yow nga ko def maanaam topp activité ak programme ya ba waxtu juróom yi nga di ko faat na nga xam ni kon yow amoo fa dara bakkaar nga fay jële waaye topp maanaam bisub sant yàlla ba tax nga def ca lu naqar yàlla kay jaay bu mu ci profité ni naa écoulé sama marchandise mi nga xam ni date ba daa weesu woon wala produit bi périmé na wala nangam nga gaaw ba koo écoulé ci marché bi bëgg gaaw jaay ko ci màggal gi na la leer ni bàkkaar yi rëy rëy rëy rëy yoo xam ne kenn mënu koo natt nga fay jële yow chauffeur bi yóbbu nit ñi tam bul gaa yi taxaw nañu maanaam oto ñàkk na ci mille laa daan yabe waaye tey naar la be 10000 francs yokk ko yokk yokk ba mu leer lan la lii jaaduwul waaye xam nga ni nit ñi moom lu ñu mën a am dem Touba leen ko gënal boo ni leen woon 50000 te mu ne fay la ko tax nga eh, tax nga yëkkati tarif bi fu warul na la leer ni kat yaa ngi cey jëlee loo xamante ni man na laa yàqal loo xam ni sa àdduna yëpp mën na caa jaare yàqu kon ñu xam ni képp ko fa dem def fa lu waroog lu waroog lu baax na la lenn la fay jëlee ni fa ko dem di wuti lu bax di amé yow ma fay dem def lu bon na la leer ni lu bon lu bono bon nga fay jëlee moy bakkar ba nga fay jëlee dee ko nat kon nañ fa jang alquranu karim bañ fa faat waxtu juroom li suñ borom wax ñu neca waye def ko euh, tourisme di wër rek furuq bu ne nga dugg fa lal sa basang tek sa rojo di deglu di di goor ñak jigéen ñak jaxaso ñu tek ko ci ker gu sedd ataay ji jolli jep jolli ñuy wax ci lu suñu yon neewul ña nga ca lamb ja ña ca nangam ña ca nangam ma magal ga ñu nga ni magal gi neex na màggal gi neex na ci yow ci lekk sa biir waaye neexul ndax amoo tuyaaba la la fa yóbbu ci am tuyaaba defoo ko defoo ko kon du lieu de tourisme du lieu boo xam ne dañuy wër di tourisme ak di wëndeelu déedéet lieu la boo xamante ne borom dañoo woo ñu santale ko suñu borom sant borom bi nag bor nit da koy sant ca la mu kon suñu borom la lañ koy defal ba waxtu wa jeex ñu ñibbisi la mu nag bokk na ca jàng alxuraanu karim bokk na ci jàng xasida Sëriñ Tuubaa ak bokk na ca ki mënul jàng alxuraan mënul jàng xasida na yor kurusam fu mu toll na baatu laa ilaha illa di dal ci kurusam salaatu ala nabi di dal ci kurusam istixfaar di dal ci kurusam subhanallah walhamdulillah laa di dal ci kurusam ba làmmiñ nam tooy xépp ci tudd yàlla waaye tam leel ñam bul dem rek yow it ñu lay berndeel rek nga defe ni dañ laa war di berndeel mais loo mën a jàpp ca bernde ba jàpp ca ndax kat maanaam kay bernde mooy am tuyaabay bernde te yow bëgg war ngaa bëgg am tuyaaba jooju kon na nga ca jàpp loo ca man waaye jokk mbokk boo demee mbokk ya nga fa am te mën leen a jokk na nga leen jokk waaye kilifa yu baax ya fa ne sëriñ su tedd sa fa ne koo ci mën a na ko waaye tam maanaam foo mën a ziyaare ci barab yu sell ya tam na nga ko ziyaare ak lépp loo xam ni jaar na ca wàll woowu waaye bu raay fenn bul diw fenn ak weñ du jariñ kenn aw xeer du jariñ kenn buntu barab ba du la jariñ raay ko du la jariñ waaye la lay jariñ mooy dugg ca barab ba jàng ay ixlaas jàng alxuraan yéene ko borom barab ba ñaan sa soxla ñaan yàlla mu fajal la ko ci barke borom barab bi noonu la ñuy ziyaare barab bi waaye du raay ay weñ du raay ab buntu du dem tam di ñaan serigne bi direct na ko mayma nangam dedet yàlla ngay ñaan ci barke serigne bi ginaaw bi nga ñaanalee serigne ba pare rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ar-rushd wa at-tawfiq ya allah wa الرشد kull a'da'in tudur bina كل al-wusul lana ya allah ya allah wa kun lana asiman min kulli mahlakatin wa najina min balaya ad-dahr ya allah